rien ne peut l'expliquer parce que en réalité il y pas de coût d'exploitation très cher très lourd dañoo nekk ci digitalisation te internet bi nekkatul luxe mais outil de travail la par conséquent muy autorité euh, étatique yi comme les opérateurs de téléphonie surtout l'opérateur euh, dominant mm-hmm. ñoo war a veiller à ce que l'internet soit accessible à tout le monde à moindre coût et de bonne qualité léegi nag euh, am na lu ñuy wax roaming national boo xam ne lancé nañ ko depuis le 31 juillet malheureusement euh, communication bi euh, ARTP defu ko ni mu ko war a defee parce que tamit période bi moo xaw a sensible mais c'est une excellente chose parce que roaming national mooy lan da lay permettre yow fépp foo mën a dem sur l'ensemble du territoire national nga mën a connecté wu même bu dee si opérateur ba nga nekk newu fa installé wu fa autrement dit opérateur boo mënta ne du ma leen citer pour mm-hmm. pour mm-hmm. ne pas faire de la publicité opérateur boo mënta ne boo demoon tey ba Saare Maodo daañu jox benn village bu sore sa opérateur newu fa amoo fa connexion amoo fa normalement waroo fa am connexion bu amee benn opérateur ba fa nekk rek. war ngaa mën a da ngay mën a connecté wu directement. Mm-hmm. ci opérateur boobu ngay def say say say euh, say transaction ak say appel ak sa lépp loo bëgg a def euh, say connexion